jërë ngeen jëf mbokki internet yi dal leen ak jàmm ba tey si ay xibaar mu doon lu xamante ne seen rek daanaka lu yees jëm si wàllu littoral bi maanaam lu toll côté eh, géej gi mel na nag das ka doon caxat caxatee bu baax a baax ba tax rek mën na na rek borom doole yi ñoom rek ñoo si doon am askan wi waaye nag ñi ñëw doole daw na woon jege fenn rek lu jege li nga xamante ne si na moo di littoral bi rawatina nag corniche bi ak naska caxat caxatee loola nag ñu ne am na lu bees peq rek lu sa daati génn ab nouvel ordre ñu ne rek daati nañ arrêté bépp chantier boo xamante ne si ne rek daati na woon am foofee rek si littoral bi ay construction yëpp rek ñu daat koy daat kat yi arrêté loola nag ginnaaw ko nga xamante ne si ne moo ti père Goudiaby Atepa foofee rek sa RTS ba mu fa doon amal ay révélation rek jëm si wàllu kooke rek ginnaaw ba lan jëlum dogal nee na rek daal di nan arrêté lépp nga xamante ne si rek daal di na nekk si littoral bi moo doon ay chantier ak yu demee noon ñu daal di loole loola nag askan wi nag bu ko déggee dañ say daal di kontaan bu baax a baax ndax ku ne xam ne ne lu jëm si wàllu littoral bi nas ko doon caxat caxatee borom doole yi nas ko doon a doon waar lool ba tax ñu si bëri bëri tamit loolee métti woon leen waaye nag jamono ji nguurug Basiru Jomaay Fay daanaka rek ba mu toogee ba léegi ak lecture gu am solo moom lay amal ba na rek mbir yi bëri bëri jamono ji ña ngi koy daati tege na si suuf ba kaar rek jubbanti tegaat ko si yoon ba tax rek ñu ne daal si nan ka arrêté bépp rek construction bépp rek liggéey bu xamante ne si rek daati na fa woon am ñu ne rek daati nay arrêté yooyu la liggéey loolu nag mën nan na nouvelle bu neex a neex bi xamante ne si rek si wàllub littoral bi ndax nas ko doon caxat-caxatee doxee cor booru géej gi rawatina corniche ba nas ko doget dogete ay borom yi eh, daraja rek daat koy séq néew ji doole yi amuñu fa woon benn accès waaye nag jamono jilee ñu ne rek daan nañ jël dogal daat yi arrêté lépp lu jëm si wàllum liggéey wàllum sànc ay construction ñeel li nga xamante ne si rek moo di littoral bi kon nag loolee mbëgteeg bànneex la ñeel li nga xamante ne si moo di nguur Bassirou Diomaye Faye bi ginnaaw ba nu wéyee di continuer di amalugo lecture eh, fépp rek si biir réew mi wala yëpp xamante ne si ne jamono ji war na saa amalug lecture loolee lu am solo la trop